Euh, tey la dialogue bi di ubbi tey lendemain élection euh, Sénégal bi waroon na am te ñu fomm ko n'est-ce pas oustaz Maodo Faye waaw te ñu te kenn xamagul kañ la kenn xamagul waaw. <laughs> waaw donc fommunu ko dañoo xamagul xëy na nag ñaari fan yii nu dëgmal. Hmm. Euh, diggante tey ak suba xëy na nu xamandi gàpp ba. Hmm. ndem des na ko xam waaye nañ jàppandi ci loolu. ndax gannaaw kilifa gi nee na ci ñaari fan yooyu daañu xam euh, bés bi ñuy wote waaye nag dafa bari li arab yi naan ay tanaqudaat maanaam bu ma ko doon wax ci mbàkk si la xam ne li may wax maanaam ay baat ak i am da cee bari. Mm. ak wax waxeet it da cee am. Mm-hmm. bu njëkk bi mooy yéen a ngi fàttaliku fan yéenu génn bi conseil constitutionnel tànnee ba pare. Mm. am na ñu ñu seppi woon sànni fee ñu ne te spolié. ñooñu xam nga bokkuñu woon. dañoo meroon nag ànd ak waa PDS ak ñoom Cheikh Bamba dem seeti président Macky Sall. Mhm. nun kët génnee gundu génnee ci yëf yi nangam boobu sax waxuñu fa problème ay ay ay toxal élection yooyu ñoom bën génne nañ waxuñu fi loolu. Mhm. xam lu leen président Macky Sall tontu mhm. leen ah conseil constitutionnel nag bu waxee ba pare loolu moom c'est définitif kenn mënu ci dara. moo ko wax de man waxuma ko président ko wax. ñu teg ci ñetti fan mu na nangam naam. jàpp na pat daal ne léegi nañ nañ waxtaan. Hmm. muy beneen baat beneen mbir boo xam ne bii kenn xamul lu muy firi. Hmm. beneen bi ci tegu tam ñan na woon duñ bokk ci élection yi mu ne leen kaay leen ñu waxtaan. Hmm. maanaam ña nga xam ñoom lañ leen a génne woon ba noppi mu woowaat leen. ne leen ñu waxtaan. te ñooñee ñu génne woon demoon nañ toog ak moom mu ne leen conseil constitutionnel lu mu xas ba dogal man mënuma ci dara. kon ma jàpp ne ay wax la yoo xam ne yii yu joonu la yoo xam ne yii daal man doy na waar lool mënaguma koo firi. beneen bi ci tegu nag mooy réew mi euh, conseil constitutionnel béréb bu am solo la bu baax la. Mm. waaye daanaka ak wegam. Mm. wek mooy respect gu ko war a jox joxatuñ ko. Mm. ndax weddi nañ ko implicitement weddi nañ ko indirectement. maanaam kilifa wax na ba pare ñu ne def leen lii mu wëlbatu ko ne lii la ñuy def te kenn mënu ci dara. wala ka doon wax naan conseil constitutionnel lu mu lu mu lu mu waxati kenn du ca dellu ginnaaw kooku tey jii moom teg na wax jooja waxatu ca dara daat ñuy indil jeneen wax mooy kaay leen ñu waxtaan tey ba léegi man gisaguma réew mi ci xeex bu mu nekk wala jafe-jafe yu mu nekk lu jar waxtaan man gisaguma ko mm. lu dul dem leen wote ji lii laa gis. am na solo jërëjëf oustaz Maodo Faye Serigne Mbacke Sylla yow loo gis gannaaw lendemain vote. bu amul ak euh, dialogue buy ubbeeku. waaw xanaa mu mel ne rek bu doon yaakaar la wala lu ñuy séentu xaw tuuti kon nga ne yaakaar ju tas wala nga ne guléet ndax euh, euh, lu jiitu bisu démb bi. Mm. weer yiñ jàll ak at yiñ jàll yëpp ñëpp dañ doon wax naan février 2024 mm. muy rendez-vous boo xam ne rendez bu ñëpp bokk la mm. xam nga rendez bu ñu seq maa yow rek ci ngor kenn waru koo fausser ci ñun ñaar rawatina nag rendez boo xam ne rendez-vous askan la askan wi damay wax ne da am ñoo xamante ne politique wuñ ci benn parti milité wuñ fenn demuñu manifestation demuñu fenn ñoom li leen neex ak li leen naqari lépp benn set rek lañ am bu ñu ko wonee mhm. mooy dem wote ji leneen li ci des tam mooy ñu dëppoo woon ci ne lii mooy date bi nga xam ne ci la ñuy def élection yi mhm. man nag ba bi ko président di toxal gisuma lu jar ñu toxal ko maanaam ba bi mu koy toxal defe naa sénégalais boo laaj tey démb mhm. ne ko waaw lu tax euh, dimanche bi élection amut mënu laaw du ci xar-xarub doj ne lii moo tax élection amul. Hmm. du kiris du ñàkk déggoo gu am. du lenn loo xamante ne yoon préparé wut bu lii amee na ko lii def. bu lii amee na ko lii def recours nga def nii lañ koy nii lañ koy saytoo diw daa am double nationalité nii lañ koy saytoo lii nii la nii nii la ba loolu am xëy suba ne ne këpp suñ kaw mm. léegi kon day mel ne dugg nañ ci guuta goo xamante ne ku ci xas ba dugg mm. ngir nga génn ci da ngay tëñax tëñax yi mm. moo tax li Maodo wax léegi ne di wax wax ji di teggeeku di wax wax di nuru waaw bu bu subaa mu nuru déet euh, xeetu xeetu xeetu ku dugg ci guuta léeg-léeg mooy mooy mooy indi lu mel noonu c'est-à-dire dialogue bi ñuy woote tey même ñiy dem di dialogue yi danga naan lan la ñuy dialogué bu fekkee li ñu dialogué ji mooy jàpp datu datu datu datu yi rek moom la ñuy dem ngir dialogué ko man nga ne waaw jar na ko waaye man nga ne kon est-ce bi warul woon a jiitu kon avant ñuy reporter date bi hmm. avant ñu naan euh, amati hmm. ndax dañoo jiñ kii corruption wala wala dañoo def nangam est-ce que dialogue bi warul woon a jiitu hmm. bañ dëppoo ci ne lii kat wax dëgg yàlla situation bu mel nii mënuñ cee dem ay élection kon nañ ànd pousse ko ñu ànd pousse ko kon yaakaar naa duñu am jafe-jafe bi léegi meneen bi ci def dialogue bi man naa baax waaye nag mën naa ñàkk crédibilité moom itam parce que su fekkente ne ñi nga fiqal langue politique gi ñi ci ëpp te nga xamante ne ñoom nga waroon a dialogueel directement maanaam lànk nañ kaare na ñoom dialogué wuñ nga dem dialogué waat ak ñi nga bëgg a dialogueel wala ña la nangoo wuy si jëlub dogal dogal bi mën naa ñëwaat ba noppi amaat ñoo xam ne dañ naan waaw am ñu naan déet te ñim concerné dëgg-dëgg waxtaanu ñoom am na solo jërëjëf Serigne Mbacké Sylla 11h22 minutes li leer ba leer mooy ndax crédibilité boobu ngay tudd justement euh, loolooy loolooy laaj principal bi dialogue bi mënta am benn crédibilité à partir du moment où ñii war a dem jongante ñoom li principaux concernés lank nañ bañ waxuñu ñett ñi nga xam ne ñoom fi ñu far ñëpp xam nañ ko mais principal euh, euh, opposant yi nga xam ne ñoom ñoo war a dem jongante ji te nekk ci opposition ñoom demuñu ci dialogue ba donc dialogue ba zéro crédibilité loolu leer na euh, ak lu luñ ko mënta layal waane itam oustaz Maodo Faye est-ce que du président Macky Sall jeu politique yi mu dëkkee ah ak tactique yi mu nekkee boobu léegi ci la ne ba tey étant donné que moom président Macky Sall xam na ne le deux lay jeexal de toutes les façons amatul choix président Macky Sall nee na jox na cër institution yi te gis nañ li conseil constitutionnel euh, mujjee génnee ci euh, ci ci dogal xam wóor na ko ne dix-neuf yi ñu validé ñoom ñooy dem jongante moo tax ma ne démb damay waxtaan ak benn xaar suma benn copain ma ne ko. les spoliés nañu naa ni ndox te tëddi. Mm. parce que de toutes les façons conseil constitutionnel décidé na ba pare ce sont les dix neuf que ça plaise ou non qui iront aux élections te président Macky xam na lool bu baax mais la il est en train de jouer de jeu politique yooyu muy def lenn nag mën na ko cee ut mooy euh, état donné que moom ay ñetti candidat yooyu noonu def nañ seen euh, sondage xam nañ ne duñ dem fen duñ gagné tous mu jéem a léegi jaxase carte gi jaxase opposition bi ak opinion bi léegi wane ne moom mooy woote jàmm léegi ñii ñoom. bu ñu leen wooyee ci jàmm du ñu wuyu jàmm kon du ñu ay nitu jàmm loolu itam mën na jouer ci conscience yi en fait il est dans un jeu politique en sachant qu'au fi in fine de toutes les façons ce sont les 19 qui iront aux élections waaw li nga wax de moo war a nekk li ñi nga xam ne tànn nañ leen ba noppi keneen ku dem ci élection bokk ca te bokk woon ci 19 yii kon cere ji kon cere ji xajamal nañ ko hmm. même buñ waxee dañ koy reprendre wedd nañu conseil constitutionnel wedd nañu suñu institution yi même bu ne procédure bi dañ koy toppaat ak yu demee noonu kenn kon seen njariñ a tax mais dafa am beneen baat boo xam beneen affaire boo xam bi gars yi dañ koy bëgg a romb te ma bëgg ko fàttali mooy. fan yi ñu génn le 15 février bu ma juumul ci fan yooyu président Macky Sall ba mu ne bu xeet génn. daal dina léegi dàq naa élection yi ba 15 décembre. ba mu koy wax dafa dafa woote woon dialogue. ba muy jël ba muy jël dogalu boppam. nen kaay li dàq naa ko ba ba 15 décembre. Mm. booba avant mu jël lu tax wóotuwul dialogue. waaw ah, moom kay. est-ce bi daa waroon a jiitu comme ni ko mbaa avant de ko bokk ko wax doo woon nit ñi waxtaan li muy wax ni tey mënoon mënoon naa jiitu loolu. mais euh, euh, euh, oustaz nga baal ma. li ma la wax léegi. <coughs> man sama jàngat bu gàtt du ma nag spécialiste de rien du tout. Mm. mais président dafa nekk ci ay jeu ak calcul politique. président Macky Sall mënoon na woo tey tey tey dix neuf candidats yi. Mhm. ñu daje ca pale ñu décider date. ah mm. man la coow coow du jib. ah kay loolu mais lu tax mu boole ci ñeneen. te xam na ne ñooñu ala kulli aal du ñu bokk. Mhm. moom jeu politique lay ah, def. jaxase jaxase kàddu loolu ko wax loolu foofu laa jëm Nicolas gis nga li nga wax nii <laughs> li nga wax nii téere li wolof gaa yi naan téere. kenn mënu ko dindi parce que président Macky Sall kenn ku nekk xam na nit la koo xam ne kii ci wàllu politique moom moom bu clignoté gos mu ngi jëm droite mm-hmm. loolu moom yàgg na ci moom te tamit wax dëgg yàlla ay kàddoom a ngi fi yoo xam ne yees peq nekk ci réseaux sociaux yoo xam ne lam fa doon wax démb ci respecté institution yi dañuy def lii bu lii deful nangam nangam lii la ñuy def mm-hmm. wax joojaa ngi fi ba léegi mm-hmm. mais jooje wax yëpp léegi lef lef na ko teg ko ne léegi nag di xool ëllëgu lam bëgg gannaawam parce que nag man jàpp naa ne ñaar am na ragal boo fi jógee koo xam ne kii bëggoo mu jël réew mi mu jël réew mi c'est très possible loolu am probabilité la wala nga ragal sa gannaaw ay mbir yoo xam ne mënoo ko wax nit ñi wala nga ne yéenewu ma diw mu falu mm. wala nga ne mbër mi ma teg mën naa tas sama parti mm-hmm. te bu ñu jógee ci élection yi kon sama mbër mi ma teg bu fekkente ne gars yi ànduñ ci affaire man naa tas maanaam am na lu bari yu ba nekk ci bopp njiitu réew mi yoo xam ne moom bu ko firiwul kenn mënu ko firi waaye Sénégal yi am nañ ci gis-gis waaw nest waaw lu am solo la xam nga léeg boo koy jàngat ba ba mu xóot euh, na ma na président baal mais da nga naan président dafa nawlawul sénégalais yi maanaam moom euh, dëgg-dëgg bu fekkoon ne njiit lu yab aw askanam hmm. da nga naan ku jiite aw askan la ba noppi yab leen hmm. wala nga xeeb leen parce que xeeb leen mënta weesu nga jàpp ne yow yaa leen war a tànnal fañ jëm ëllëg mm-hmm. te yow bañ lay tànn nit ñee la tànn noonu ci seen coobarey bopp euh, ba ci sax jàkkaarloo gi mu doon jàkkaarloo presse bi boo xoolee sax bi koy laaj sax li nga xamante ne def na ko sax baatub li ma li ma def ci dëkk bi mm-hmm. ak dëkk bi fi mu agsi fi mu nàngam yooyu wax yu am solo la waaye léeg-léeg nit ko wax waaye nag del ko yow itam li nga xamante ne nii moom la la dëkk bi defal mm-hmm. nga dialogue bi ñuy wax tey am na solo de waaye dañoo dialogué woon ba pare pour man xam nga kañ leen dialogué woon président avant élection yi woote na fi dialogue boo xamante ne ña ko wuy ji wuy ji nañ ko ña ko bañoon a wuy ji bañ nañ ko wuy ji waaye ànd ak lu ca nekk itam dialogue nañ ba ti ba ba jë maanaam ba tiiree fa dara hmm. mooy député yi léegi mën nañoo ne nit maanaam ku am naa nga mi député mu nekk sa parrainage hmm. ñu dialogue fa lu jëm ci wàllu constitution bi dialogue fa ay yëf yu baree bari yóbbu yëfi assemblée wate ko ba lépp tegu ci yoon ba dem ci élection des nga wootewaat dialogaat encore c'est-à-dire amul lu ñu dëppoo ci àdduna gis nga fay sansam te fa tawakkal laa Allah li muy tekki mooy buñ jalogee ba tënk mel ni mbir ba noppi hmm. nañ am ngoruk jëfe ko hmm. c'est-à-dire yow kilifa gi amal amal dogu jëfe ko waaye na fekk nga bëgg koo jëf hmm. tey jii même sax 19 yëpp buñ demoon wuy ji ko ñu ànd jaloge ba noppi ñu xëyaat Maodo man naa xëy bind ne wala mu wax ci rajo bi ne dialogue bi kat bañ ko defee ba noppi nangam d'accord ma ci ndax day tax nga woote dialogue at mhm. ndax ndax dañuy dem ci loo xam ne ñëpp a ci d'accord est yu ñëpp mas a mas naa am ci àdduna mhm. loolu mas am wala wala yëpp bokk wala boog lépp àndandoo ànd bokk loolu mënta nekk ñi fi nekkoon ay candidat déposé ñëpp mënuñoo bokk mhm. ñëpp mënuñ cee ànd li ci am solo mooy dat bañ ba buñ fay ñu yëg ne def nañ maximum d'effort pour man faa àgg ci ni mu gënee mm. nga xam ne même même bu lépp du dëgg gu wérit mm. te jéem nañoo dox ci yoon luñ man mm. loolu la xaar ci moom mais mënuñoo dialogue ba déggoo ci parce que parrainage kay pour segg la segg nañ ba pare kay <laughs> si lépp mënuñoo dem mais loolu li ngeen di wax nii yëpp na na ko waaw gën a xam fuuf merci nag waaw kay léegi nag xam gi mu xam ba pare te nangawu koo jëfandikoo ci loolee di teg ay problème politique mooy kan mi nga xamee ne am pax Macky Sall day politique nag. waaw mais d'accord mais mais xam nga bu tegee candidat am ay sondage mu wóor na ko def candidat dañ koy duma léegi lan la ci génnee pour que léegi jaxase carte gi loolu lay. wóor mais dans tout ça mais dans tout ça politique amul gentleman wala nangu wala dara. mais dans dans ce que mais dans tout ça peuple sénégalais nag. that is a question. voilà askan wi nag ñoom. bu ko roogee fu leen di teg. Mm. dama ni mars deux vingt et un li faatu ci ay doomu aadama. lu jege ñaar fukki doomu aadama faatu ci fii ci biir Sénégal mars 2021 lu mat téeméeri doomu aadama am ay gaañu gaañu. buñ jëlagul woon bis boobee ne dara xewul kon bu ñëwee ba fii ne dara xew ne daf may jaaxal. Hmm. xaw ma dégg nga fi may xam de. maanaam fi ñu bëgg a wax ne dialogue am na. Hmm. def nañ 2 mars 2021 ay doomu aadama. ay Sénégal faatu dalal société waaw waaw kenn wootewul dialogue. Hmm. teyit it ña rayoon nit ña xaw ma kan la xaw ma ñan la. ba léegi kenn inquiété leen. lu tax booba wootewul woon dialogue. ñu bàyyi ba nga xam ne dañoo war a dem askanu Sénégal tànn ku leen neex. Mm. ñu ne kaay leen ñu dialogue te mars 2021 moo gënoon a garaaw. Mm. fuuf. ñu demaat ci mois juin ba ñu defaat manifestation am ñu faatu kenn wóotuwul dialogue. Mm. ñu bàyyi ba nga xam ne léegi réew mi date moo ci des. ñu ne ah comme li Mbacke wax léegi élection kët neexut ba neexut waaye ñëpp mun caa dem. Mm. parce que parrainage bi xam nga lan mooy histoire lan ñu koy defal. Mm-hmm. pour léegi candidat yi wàññeeku taxoon. Mm. ndax bëri na vote nit ñi mën a voté dem seen yoon ñu dem def loola conseil constitutionnel daal di xool tànn daal ne ñii mën nañoo ñëpp bëgg di fab euh, affaire yi def ci suuf waa PDS gën a daal ne wéy Karim Wade il faut mu nekk kandaa wax ne yow gisoo ko fantum jékki-jékki daal ne woo léegi il faut ñu ñëw dem gis ko hmm? parce que ñun waa PDS buñ bokkul nangam nangam sama jigéen bu baax bu Woré Sarr génnee benn benn <laughs> moom na ko baax la sama wax ca lu ko neex xam nga moom la gis sama sama waay la quoi donc loolu xam nga mooy wane ne kon mbir mi am na leneen lu ci rax loo xam li politique politique politicienne boobu ñu def nag hmm. waaw askanu Sénégal moom ndeysaan moom mooy mooy sa sarax wi rek hmm. xam nga li metti na hmm. te ñoom ñoo waroon a tànn ki leen neex même tey bu fekkoon ne dañ ne Nicolas kaay nekkal ñu président on s'en fout bu réew mi tasee Nicolas na ko tas yow yaa ko tax ñu bëgg a xam lii bëgg a xam ëllëg bëgg a xam te yàlla rek xam li xew ëllëg. président Macky moo la gën a xam ne. ah c'est c'est clair yi 19 candidats yi conseil constitutionnel validé 19 yi ñooy dem jongante ji. ah président Macky Sall moo la gën a xam ne. pré prochain président bi mooy régler coowal ay ay parrainage yi nii après ci lañ koy waxtaanee dialogue boobu vrai dialogue bi fa lay tàmbali. Mhm. mooy président bu bees bi mooy woo après classe politique bi. a tabaxaat. mooy waxtaanee loolu yëpp ak euh, classe politique bi c' pas président Macky Sall. moom gën a xam ne loolu mën na am aussi président Macky dafa nam tàggatoo aussi. tàggatoo xam mu ngi mu ngi jeexal aussi hmm. peut mu gis ay ay ay copains yi nga xam ne gëj nga leen gis. daan tàggu président kay gëj ko gis kenn ku bëgg a gis a gis mën na laa gis. lu am solo la de en tout xam naa moom moom daal euh, moom président complication yi mu indi ci wàllu élection moom. complication yu bëree bëri la. waaw xam naa xaw dañ ñaan mën a politique la lenn li. Hmm. doo xam ba xam bari pexe la. doo xam ba xam eh, di wax nit ñi loo xamante ne waajoo ko la ndax man bu ñu demee ba ci biir am ñu ne ma naka jekk xamoon nañ ne élection du am. Hmm. man loolu ni ma jaaxale Maodo. maanaam eh, élection yi ñu doon waaj démb ñun nit ñi di ŋar-ŋar yi di déposé ji parrainage gars yi di waaj ñi journaliste yi di waaj ñoom Baye Omar di waajal ay émission kenn ku ne nekk sa programme. Hmm. nit mën a génn toog nañu naka jekk. élection moom gars yi mosu ñoo pare pour dem élection le 29. Euh, c'est-à-dire euh, loolu dafa nekk loo xama la 24 loolu dafa nekk loo xamante ne nii mbir la moo xam ne li nga ciy jàngate hmm. lu baree bari la loo xam ne président moom ay waxam kon day day nekk wax jox dégg naa mii mas naa ko seetaan mu wax ko hmm. ne président Macky Sall kilifa goo xam ne ay waxam dëgërut maanaam doonu doonu lu ñuy jàpp jamono yi muy opposé opposition bu radical hmm. léegi nag mm, tubarkàlla moom moom fan yi dégguma ko xaw ma ci lu mu nekk Idriss Seck ah Seck waaw yaa ngi koy dégg Oustaz yaa ngi dégg. non non dégg nga ko. waaw ah, dafa mel dafa dëgg bal bi kon. waaw ah, Idi waaw Idi dëgg na bal bi mais Idi te moom mooy chef de l'opposition. waaw mais Idi dëgg du lu bees ci moom aussi ah, ah. waaw. depuis très longtemps. depuis très day toll foo xam ne. non depuis longtemps maintenant il parle it parce que ñu nit li ñu waxoon la ñuy waxaat mën naa mën naa am daa toqi <laughs>